fii jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd beeg teewlu gi seen rajo suñu kër FM tey nag bu ngeen ñu gisee fii ngeen xam ne ñu ngi koy faral di defee chaque année muy at bu yàlla sakk rek dañuy ñëw fii ci waaxu Kaolack bi port bu Kaolack muy tefes gi daal di teertu ñi nga xamante ni ñoom ñooy jóge ci île yi ñu gën leen a xam ci waa Bassoul Bassar xam naa bu limee jum fépp foo xam ne rek gaal war na faa mun a jóge ngir mun a teewee bésu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daañu ko def naam sax mënoon nañoo jël ay oto waaye comme ni nga xamante ko Maulana Cheikh Ibrahima Niass doon defee seen soppe ba jëloon gaalu looco rek daal leen fekk tax ñu baaxoo rek di ko noonu xam naa ne neskis bu ngeen taaxelloo rek ñu dugg ci ñoom ngeen waxtaan ak ñoom ñu saafonteeg yéen ngeen xam tey atum ren ji nan lañ ko waajee ak nan lañ leen dalalee fi ci diwaanu kawlak kanam tuuti lay doon. yoon bi nga xamante ne mayaat nañu ñu fekkee ko fekkee nañ ko ay at yu bëree bëree bëri ren it fekkeewaat nañ ko euh, malgré condition hivernage bi tempet yeeg yëpp terewul Euh, taalibe yi terewul ñoomin kay terewul waa il bi gàndul ñu ngi wéy di gën a am sawq di gën a am mbëggeel ci ki nga xamante ne moom mooy seen sëriñ di Cheikh Ibrahim Niass te encore nag di fàttaleku ne ba muy gën a métti booba moteur amul ci la bàyyi xuuse woon géej gi dem fekki leen kon ak lu munti xew rek ñoom dinañ xuusaat géej gi ñëw fekk si Ibrahim Niass loolu dañ ci sant yàlla bu baax bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu teewewaat ko ren incha allah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax yoon wii yàgg na yoon wi sori na waaye sant nañ yàlla amuñ ci benn dog-dog benn dog-dog amuñ ko ci wax dëgg yàlla waaye nag euh, liñ ci mën a wax mooy euh, dinañ continuer di gërëm waa chambre de euh, commerce bu Kaolack di gërëm monsieur le maire nga xamante ne tey moom mooy président chambre de commerce waaye di gërëm it waa Jamiatu Ansaaru Diin bu département bu Foundiougne waaye waa Jamiatu Ansaaru Diin bureau national ci njiital sëñ Mouhamina waaye di gërëm mboolem muqaddam yi ak taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk ci île du Gandoul bokk lii nga xamante ne ñun ñoo koy organiser muy taar boo xamante ne amul ci benn pays booy dem ci gàmmo nga fekk fa taar bu mel nii ci wàllu teer ci géej ci wàllu gaal bu bu bu ñëw ziar si sëriñam loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw euh, am nañ cinquante quate gaal juróom fukki gaal ak ñeent yoo xamante ne ñoo jógee ci ñetti commune yi nga xamante ne ñoom ñooy commune yi Île du Gandoul muy commune bu Jirnda muy commune bu Dionewar ak commune bu Bassoul fu ci nekk rek ay gaal jóge nañ foofu ñoom ñëpp ñu dajee nag fi nga xamante ne moom mooy Foundiougne ñu def convoi nag ut si nga xamante ne moom mooy Medina Baye ngir ziyaare ngir ànd ak Baye Niass mi nga xamante ne moom mooy suñu sëriñ te moom mooy borom gàmmo ñu ànd ak moom ci gàmmo gi ngir ndokkeel ko ci li nga xamante ni def na ko moom it xuusee fii dem fekki gaa yi ci géej gi bi jamono méttee booba gaalu loche moo am booba gaalu voile moo am bàyyi ñu xuus dem fekki waa ndox mi ca seen dëkk ya dëkk ak ñoom fanaan ak ñoom yendoog ñoom waxtaan ak ñoom dugal leen ci diina ji jox leen tarixa bi jox leen fayda bi wax dëgg yàlla ñoom itam loolu cër boobu la ñu delloo si seen sëriñ. ba xam amul leen jafe-jafe amuñ ko ci yoon wax dëgg yàlla ndax euh, bu fekkente ne wàllum sécurité la. Euh, li nga xamante ne moom la ñu waxoon ci CRD bi ak euh, conseil national de développement bi mooy wàllu gilet yi liñ ci waxoon gilet yi gis nañ ko indil nañ ay gilet léegi kay li ñuy ñaan mooy beneen yoon xanaa ñu buñ munee ànd ak benn gaal boo xamante ne dafay am sécurité comme ay sapeur pompier ñu and ak ñom di len gungé ci yoon bi ba ñu yegg si fii aussi ñu ngi koy ñaan état parce que mbir mi du luñ mëna bayyi bàyyi fi mu nekk nii comme mënuñ ko bayyi nak ñu ngi ñaan état mu accompagnement sécuritaire bi ci bir geej gi bo ba yoon wi euh, bañ koy organiser yàgg na moo dañ amatuñ ci benn jafé jafé fi mu nekk nii bu comme demb buñ né gamu bi dess na ñaari fan Euh, lënd ci guddi tey guddi lënd gi la ñenn ñi di quitté parce que dëkk yi aussi dañoo gën a soriwante am na ñoo xamante ne bu ñu quitté balaa ñu yegg si fii lu mu gàtt gàtt dinañ def fukki waxtu ak lu teg ñooñu nag ñooy njëkk a départ bu ko defee yeneen dëkk yi parce que dëkk yi dañoo toppalante dëkk bu jubee beneen dëkk rek nga gaal boobu génn ba ñoom ñëpp ñu ñëw dajee fi nga xamante ne moom mooy fuñuy à partir de fuñuy nag ñu def seen waa boo xamante ne ñoom ñëpp ay ànd di daw ndànk di daw ak teey àndale ko ak sikar soo xamante ne niñ koy sikaree noonu la duusi géej yi di ànd ñoom ci sikar si moo tax ñoom duñ ci am benn jafe-jafe wax dëgg yàlla loolu mooy organisation bi noonu lañ ko defee at bu ñett léegi buñ jogee ci gàmmu ren bi rek ñu ngi waajalaat gàmmu déwén bi ci organisation waaw li ma leen di ñaax daal mooy euh, liñ xamee woon seen mag ñi liñ xamee woon seen kilifa yi liñ xamee woon muqaddam yu mag yi nga xamante ñoo dëkk il du gàndul ci yar ak teggin ci bëgg seen sëriñ ci topp li nga xamante ne moom la seen sëriñ di di di di di jàngale ndaw ñi aussi ñu ngi leen di ñaax ci tànk yooyu ñu topp tànk mag ñi ñu topp tànk sëriñ si ñu topp tànk kilifa yi te dëgg-dëgg dem ci li nga xamante ne moom mooy Medina ndokkeel suñu sëriñ ànd ak moom ci pay bi ànd ak moom ci gàmmo gi e, sàkku ay ñaan te ànd ak dal ak teey ànd ak yar ak teggin loolu la ñuy ñaax ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak gaal yi ñëw fii waaw cosaan bi li ko tax a jóg rek euh, wax naa ne gaal yi suñu maam yi yàgg nañ di indi ay gaal waaye ci 1986 ci la Papa As wax ne na nit ñi da indi ay gaal euh, def benn convoi bu boobaa dëkk yi ñëwoon ci at boobu 86 jam ñaajo la Jirnda ak Bawut boobu taalibe Baay bëreegul waaye fi mu nekk ni nag euh, soo demee ci île bi ñetti commune la commune yooyu yëpp comme commune Dionewar Ñoojoor ak faliya boobu mooy commune Dionewar soo ñëwee commune euh, Bassoul euh, muy Bassar jogan euh, Siwo ak Thialane moom mooy commune Bassoul commune Djirnda Ngajoor Munde Fambine Maya Diamniadio Vélingara Bawut Rofangue Fayako ak Félir soo ko compté rek mun nañ nekk fukki dëkk ak juróom-ñeent dëkk boo ci dem rek soo nee bàyyi rek di nga dégg na ñax ñooñu ñëpp nag ay gaal la ñuy jëlee foofu ñoo kii la munoo dem te jëloo gaal ren na xam daaw moom i woon kese quarante six pirogues waaye ren am nañ cinquante quatre pirogues yoo xam ne dañu wàññi sax gaal yu ndaw yi li tax ñu wàññi gaal yu ndaw yi mooy eh, dañuy xalaat eh, ñu ngi ci nawet balaa ngelaw di am wala taw di am waaye gaal yi waroon nañu ëpp loolu waaw ni ñuy dundee yoon bi moom suñu ñëw moom eh, duñ yëg coono bi ndax dañuy ànd ak fierté dañuy kontaan ndax xam nañ fi ñu jëm si ndax li bay daj ñun dajuñ ko jaajëfalaat leen bu baax a baax ci ànd bek tewlu gi seen radio suñu kër FM ba tay rek ñu ngi en direct fi nga xamanteni mom moy port bu Kaolack comme nama leen ko waxe won sank rek ñu ngi ni fi nga xamanteni mom moy port bi fasiyene dalal gan yi waye it ak ñom señ bi ma ngi lay nuyu na ngi lay delo ziaru sax tur bek sante bi Alaay Sarr Elaaj sar ala sar ban dekk nga nga Ngajoor Ah, atum ren ji nan ngeen waajalee li nga xamante ni moom mooy gàmmu ji yéen waa Ngajoor atum ren bi moom vraiment mu ngi extérieur mu États-Unis ni ñëwee neex na yoon bi it neex na ñu ngi coordonné moom ñu ngi waxtaan incha allah ñoo ngi ko fas yéene si guddi rek lañ mujjee di coordonné mu ñuy ay instruction yàlla wara joxe commencé di ñëw Kaolack ba tey naam ndax am ngeen jafe-jafe ci yoon bi non amuñu jafe-jafe nag amuñu benn jafe-jafe mais tey jii benn jafe-jafe lañ am jafe-jafe boo xamante ne mooy benn gaal moo moo moo war benn gal gu ndaw ba coon bi xaw a damu coonu gën bi daal moo damu loolu daal mooy coow li ko mais garaawul it benn danger amu ci benn problème amu ci yan coppite ngeen gis ni moom mooy teer ah de bi mom bari na trop ndax mbolo bi fi daje ren mom, day na daay trop waaw nah, bari nañ trop vraiment bari nañ trop mbolo bi mom amna na doole mbolo bi ma fi gis mom ginaaw gis trop trop. na tay mën nga ñoo laalal tuuti ci nga xamanteni mom moy Maulana Cheikh ibrahim Niass en tant que talibé Maulana Cheikh ibrahim Niass Maulana Cheikh ibrahim Niass nak mën nañ ci wax lo sori mais duñ ko guddal ndax mom geej la du jeex du jeex day haaj xam nga. mais ñun daal li ci yegg saa su ne ñoo ko ci yegg te bés bu ne ñoo ngi ko ci yegg mosuñ cee jóge te fu ñu fu ne dañ fay dem incha allah. lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñoom nga àndal waxuma la waa nga joor waaye ñi nga gaal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew yëpp rawatina ñu doon ay ndaw. dëggantaan ñu ma àndal moom li ma leen di ñaax mooy ko ñu gën a rafetal affaire bi gën a jokk mbokk bi li nga xamante ne moom manqué ci ñun. mooy mooy mooy mooy mbooloo mi mbooloo mi nga xamante ne ñii dañuy am lii ñii am lale comme zaaru ay gilet yooyu noonu ñii dañu am gilet ñeneen ñi duñu am gilet xam nga te après ñun ñëpp dañuy waxante lante affaire gilet dañuy dem ba diggante bi bu ñëwee ba fu ñu war a am yëpp duñu am parce que ñun ñi bi ñuy ñëw amuñu gilet mais yéen ni gaal yëpp am nañ xaw ma nag affaire bi nu fa demee noonu mais loolu daal mooy jafe-jafe suñ jafe-jafe ñun waa voilà mu ngi noonu suñu kor FM jaajëfal na la bu baax. ba rek suñu FM comme niñ leen ko rek rek ci dalal gana yi nga xamante ne ñoo fi ci port bu Kaolack bi la yoon nag benn jigéen lañ fi di soxna si maa lay nuyu. ngi lay fay. bi. Mary chor Mary chor ban nga jóge. Basaar. Basaar atum ren ji yéen waa Basaar nañ ngeen yoon bi ak nan ngeen ko waajalee yow en tant que jigéen ak say morom. allo allo allo bi na na parce que 2 heures du matin lañ quitté ex fi presque ay 9 heures yo yalla yalla mo ziar ma sha Allah dal man nañ wax né metti na metti wu dal waye bañas dal moko waral bañas mom képp lépp lu ko def euh, ay ay gal lañu lañu ay séeréer ñoom ni alaaji Babacar Niass nga xamné ne dafa la commencé su ma itam digënté ak gabu ci indi ka fa njëkk a yóbbu moy Cheikh Ousmane Fati bu alaaji Babacar ñu koy yàlla def mooy dox boobu nag ñetti dëkk rek li ko fa yaakaar naa ñëpp xam nañ waaye ci liggéeyam ak roofange bu boobaa loolu nag la xam moo tax mu wax ma ne ma naa ñëw teewal ko fii suma fayda bi tawaale comme xam ne noonu la daam teeru ay ganam waaye damay wax ne dinaa jéem waaye du ma mën lépp ndax doomu Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass ko bëgg a yaakaar naa du du waaye da ngay jéem rek waaye pour fàttali ñëpp daal ne suñ teewaay fii tey Cheikh Serigne bay Niass MC moom lañ fi teewal te ñëpp xam neen digganteem ak waa ILBE rawatina Shababul Fayda bi nga xam ne moo ko fondé tey moo ñu wax ñu teewal ko ñu ñëw maa ngi ànd ak imam Makhtar maa ngi ànd ak boo xam ne tamit ay ay taalibeem ne ñu ngi jugee ba Nigéria ñëw pour teeru gan yi incha allahu rabbi di wax ñëpp ñu dal ak jàmm la wane waat tey waaw sant yàlla tey boo gisee lii dafay dem ci way bañas bi nga xamne bay waxon waxoon ne ko ne xalawtul bixaari zaaxiraati fa innani halawtul qura wal mudna bal hal jibala aruumu ridal bari li nusrati dinihi wa ubrizu lil jil al jadid misala tay ñi ngi taxaw ci buntu géej bay def ne jeegina duguna ci bato yi jeel géej waye tamit duguna ci avion jeel jawuji waaye tey dugg na même dem na ba ci dëkk dëkkaan yi te loolu du dara lu dul nouvelle génération bi di ñëw mu wax leen fan la ñu war a teg seen tànk loolu moo tax tey lii bokk na ci boo gisee ndaw ñi fi nekk. boo gisee mag ñi fi nekk nga xam ne seen itte du dara lu dul liggéeyal yàlla te loolu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass moo leen ci tàggat moo leen ci yar ndax waxoon na ne wal ummatu xasdi fiihumu an asuuqahum ila xadrati lbarri rahimi ilahina wal taalam hal fi lxalqi ana anhu mada dahri minni wal baidu kama dala sant yàlla la ñuy def di ndokkeel Mawlana Cheikh Ibrahim ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu bii nga xam ne ñëpp am nañ cofeel dooleekuwaat neen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu baay suñu xarit MC Niass ca Amérique di ko wax ko dineen jéem waaye mënuñ koo teewal waaye nag dineen jéem ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko wax ne ko nag na ñëw ñëpp ko soxla Sénégal a koy laaj Medina Baay a ngi koy laaj gàmmu Mawlaana Cheikh Ibrahima ñu ngi koy laaj. maa di nuyu waa Sénégal na di nuyu waa Kaolack di nuyu di am mbégte ñëw recevoir ñii fii ñiy jógee euh, ci île yi ànd ak sama xarit monsieur le maire ak sama adjoint Baye Mbaye euh, Baye Mbaye Niass ak représentant bu président Benjeloum lii nag dafa nekk ci ñaan yi nga xam ne ni cheikhul islam alaaji ibrahima ñas ñaanoon na ko ci nee na dem naa ci géej géej yëpp pour wut ah, ngërëmul sunu borom te mam dem tamit pour gindi nit ñi la lii jaral leen ñu fanaan ci géej gi fii tey pour wut si barkeel kon nag maa ngi leen di gërëm di sant di masawu monsieur ndax liggéey bu metti la di ñaan rek ah, comme li ma daan wax toujours rek gouvernement bi gën a amélioré keroog CRD bi sapeur pompier wax nañ wax ju dar ne danañ leen encadré la chambre de commerce tamit distribué na 4000 repas wut na ay biis yu leen yóbbu te gaal yi wàcc ci bi yëpp kenn fayul dara ndax su doon port yi ci àdduna bi yëpp boo fa wàccee passager da nga fay loolu nag dañ ko def pour fayda bi fayda bay dañ ko def tamit pour ñu nekk ay Kaolack waa dañ ko def tamit pour xam ne lii ñu yor moomuñu ko ko dénk dem ko mi soxlaa dañ ci war a dafa war a yomb surtout kuy ñëw di wut si barke kon li may wax toujours rek réussir guma ko maa ngi wax toujours ah Ablaye Thiam secrétaire général ne ko góorgóorlu ba coordonné ak ñoom ba fii di am foire bu maga maga mag parce que mënoo dajale 4000 personnes ñi ñew dem so demee Makka wala nga dem ci aéroport yi wala nga dem ci gare yi activité économique da fay am ñi jaay ak ñi jënd ak ñàkkul ñu am yo xamné ni nii dañoo bëgg andi wala ko jaay ko fi ñàkkul yoo xamné ne dañ ko bëgg a yob wala ko waye waaye nak rek ndax da 2012 ñoom ñu ngi koy def kon na ñu féliciter bu baax secrétaire général bi ak membre de bureau chambre de commerce yi liñu def ci li di masawu pèlerin di gërëm sama collègue bay mbay adjoint omer maire ci jitu gi ma fi jitu ak taxaw bi ñu taxaw di gërëm yeen tamit journaliste yi wa di ñaan yalla ñu fekk ko déwén. ren da ngeen innover ak euh, accompagner leen ak ay auto ñaata auto la. wa xam nga 4000 personnes mom bo leen di yobbu ñu ngeen di yobbu rek bañ dem xam nga auto yi mom ah auto bu ne ay 30 personnes lay dem. waaye du ñàkk ñoo xam ne nii ñooy demal seen bopp waaye waaye oto bi yaakaar na bari na xaw ma lim bi nag waaye xam naa ne waxoon naa leen ne leen nañ fexe ba jàppale pèlerin yi bañ mën a àgg incha